waaw loolu moom amul ma dem te ñu fi fi may mujjee mooy ci wàllu combat boo xamante ne nii euh, jàppoon nañ ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg instant bi nag euh, da dañu naan wuréw a dem na kën léegi mu yegg si mm-hmm. ndax euh, li ci des bareetul ñaari mbër yëpp fi mu toll nii ñu ngi ci ay forme muy Ama Baldé di Modou mm-hmm. la ca des bareetul foofu dañu bëggoon rek xam ci sa sa sa sa sa sa analyse par rapport ak ni nga doon waxee démb ak bërki démb ndax yaa ngi campé ci sa décision yooyu ba léegi waa incha allah mu mel ni ku baax komba boobu komba bu bari gàllaaj la. Hmm. combat bu bari fa fuufa la. waaye promoteur promoteur bi bu bëggee mu yegg. Hmm. na ci wut ay ñaan. ndax combat la boo xamante ni nee naa promoteur bi nga xamante ni moo koy tëgg bu mu dajale mukk ñaari mbëri ci benn place bu jaree xarale yu bees yi ama toog buntu këram Modou Lo toog buntu këram ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ñu wane la leen ci xarale yu bees yi ndax incha allah rabbi bakkan yama ci nar gis ay gone lañ ak ay jigéen komba boobu bakkan da cee nar a wadd ca ubbite gi bakkan da cee nar a wadd ci buñ defee faata dajale leen waaye bisu làmb ja ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala bu ñu yéexee xaaj bu ci bari duñ génn état ndax ay bakkan yu wadd billaahi wa rabbul kaaba tabaaraka wa taala motloo nag nawaj damaa gis bi mu songoog ama ama laala la ko garab goo xamante ni ci loxo bi la ko yor muy wàllu sengoor xaw ma wàllu téere bu mu yor garab googu bu ko yoree Modou Lo day jékki-jékki seen boppam ci suuf bu yéexee moom Modou Lo wutuwul ay ñaan duggul ci borom kurus yi ñaanlu incha allahu rabbi damaa gis combat bu mel ni combat Eumeu Sène minute yu néew lañu léetoo ama dóor ko mu ne këpp ba nu yëkkati ko mu jóg maanaam ñu di ko lëng muy xataraayu te bu moytu làmbam ji bu ko sàggaanee Ama dana jël ci moom roi de arènes te mooy bàyyi làmbam ci kàttanu yàlla tabaaraka wa ndax damaa gis defet bu gaaw boo xamante ni ci diggante dóor mu daanu la ko Ama def te Ama lii ngemb li nga xamante ni Ama mu koy ngemboo bu amee lu zone wala mu am lu xonq na moytu te xamante ni ngemb lu jafe jafet ci tojtal ko moo tax ma ni Modou bu waajul ñaanluwul borom kurus seexu asar ñaanalu ko ci combat bi defetam moo gën a xeeñ te dana daanu ci mbetteel te jël bu ñaaw te boo moytu bu jóge ci làmb ji bàyyi bëre lay def ndax damaa gis ñu lëngu ko di ko muy xataraayu ñu di ko wax muñal ci combat am ak Ama bi moo tax combat bi promoteur bi bu ñaanluwul boo moytu combat bi dana yàqu ndax dafa bari xarfar xuuxa bari mystique ci kàttanu yàlla tabaaraka wa waaye ba combat bi tasee daal ka ma gis mun na ca kaw dëgg wiiw mooy Ama bale doomu Faalaay ji ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala. lamb jooju kon promoteur bee war a ñaanlu. lamb jooju promoteur bee war a ñaanlu. ndax ñaari mbër yi liñ ci def ci xarafa fuufa def ko ci sacrifice def ko ci mbir yu doy waar yoo xamante ni gis naa ci koo xamante ni giléem gu njool ca kaw yegg ca kaw di guloomu tukkal lan ko digal mu génne ko ci génn gu yéeme moo tax ma ni la promoteur bi bu ñànduwul <laughs> làmb ji dana yàqu ndax xarafa fuufa yi ci ne gaw ma ni promoteur bi a attan na ko ak ña koy organiser ci kàttanu yàlla tabaaraka yow gëléem nga da nga koo gis wala da ngaa fekke fu ñu koy génne giléem gi damaa gis kenn ci ñoom ñaari mbër yi di ko génne sarax waaye rey wam ko reye damaa xam lii du reyn te yàlla tax du saraxe te yàlla tax sacrifice bu yéemee la ci kàttanu yàlla tabaaraka tax laa ñëwoon ma ko ci combat bi moo tax ma xamante ni promoteur bi bu bëggee làmbam ji yegg na ñàndu ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala. leer leeragul ba léegi de. da nga hmm. koo gént. giram gi dañ ma koo gis woon jaxran damaa toog ci der. bañ woon ma giléem bi ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala dañ ma ko gis du ay gént dañ ma ko woon jaxratan ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala Ama la Ama Baldé moom laa gis mun na ci roi bi daan motloo ci kàttanu yàlla déet giléem gi laa wax ki ko rey reyin wu giléem gi ci ñoom ñaar giléem gi dama koy côté ndax ay sarax lan <laughs> kenn ku ne xam na ni sarax ak mbër mooy yëfi mbër bëgguma teel a feeñal seeni mbër waaye motloo daal bu ma déggee papi dégg ma n waaj te xam ne xale bi combat bi jaral na ko combat bi bëgg na ko te bu nu sàgganee ah danañ am lu leen naqari seen digganteeg ama ci kàttanu yàlla tabaaraka wa yow daal li nga fi wax waxagum nii moom daa mel ni gëléem gi gëléem gu waa Pikine waaw kon jeex na buñ ko déggee noonu rek muy noonu waaye codé naa ko bokkoroog ñu jëm ndax nee nañ novembre bii di ñëw ay fana ci des ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ah loolu de daa am koy ñaanal ci ñoom ñaar waa man nag wax dëgg yàlla bariwul sax mbër yu ñëw ci man waaye ama danoo papam dama daan woowee bëgg fàllu te boobu xaw ma sax luy sëñ fàllu xale laa mhm. sama yàlwaan maa ngi ko doon mottalee ci moom kër googu lu ma min la xëy na boobu ama nekk na xale waaye la ko tàmbalee ci papa Gilles ñoom jine bu ma gisaatee danañ xam ne ndongo bii moo daan ñëw seen kër di yàlwaan papaam sarax na ma ba tàyyi bu ma mësaan indi guro di ko jox ama daal booy pikin laa doomu pikin laa duma ci daw bu ma gisoon leneen wax waaye fii may toll ci yéen ku ma seet ñëw ci man ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ma ñëw ñaanal la waaye fi mu toll ni kenn ci ñoom ñëwagut ci man dañuy wax rek te yàlla tax tam